ألا يا رسول الله هي أفضل الورى فنحن في ضيق شديد التراكم asalaamaaleykum mbokk yi ah kàddu googu fi mu daanoo bu ngeen ko déggee ngeen xam ne waa ahlu baytu rasul xewle nañ ñan ñoo woote ak ñan ñoo xewle neuvième édition muy takkusaanu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci ndigalu xalifa général de Tijane Serigne Babacar Sy Mansour ci ndigalu xalifa général de Mouride Serigne Mountakha Mbacké Bassirou yàlla na yàlla guddal seeni fan kan moo woote bis boobu muy Adja Assou Touré ak borom këram ñuy fii ci Géejawaay lan moo xew waxoon nañ ko. te ku wax programme mu tàkkusaanu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku nekk dinañ wax bis ba nan lañ koy doxalee ak nan lañ ko war a tëralee ci gàttal ñi fi teew muy daayira sopp nabi ñu ngi fi teew ci ndigalu suñu responsable moral Serigne Issa Touré yàlla na yàlla guddal fanam yàlla ko yàlla may wér moom bi nga xam ne mooy jàpp bés bi at bu nen ñi di ko def ñu ànd ceeg daayira soppi nabi bi ci Géejawaay ki ko jiite di président Adja di Diatou Ndiaye Diouf ak ñi mu àndal ñu toog ak waa daayira bi organisateur bi mi ngi nii toog ci turu imam Ousseynou Fall organisatrice bi mi ngi nii toog ci turu Adja Aminata Niang kon li ñuy def rek mooy jox kàddu gi Serigne Ousseynou Fall mi nga xam ni moo yor wàllu organisation bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nii mbokk jullit yëpp mbokk taalibe yëpp di leen ziar di leen baal wàq comme ni ko sunu président waxee Aj du Niass ne samedi le 27 lan mooy xew samedi vingt 27 lii xew mooy tàkkusaan bi nga xamante ni dañ ko dippee Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam mu nekk neuvième édition di amee fii ci croisement Sam ci gas euh, Gaston Berger incha allah ñu ngi ciy woo ñépp rawatina taalibi tiijaan yi képp kuy wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ñi ngi la fay woo nga xamante ni dafa bokk ci xeetu sang réew conférence yi ñuy def ak gàmm yi day sang réew ndax jàng alxuraan bi ñu fay def bu ñu xëyee dinañ wàcce kaamil 9 heures incha allah mbooleem daara yi nekk fii yépp dinañ ñëw wàcce kaamil mu nekk loo xamante ni dafay sàmm réew buñ jógee ci kaamil bi mise en place bi mu ngi nekk quinze heures incha allah quinze heures dix-sept heures daayira xayru wal minnati bu sopp na bi bu sëriñ Issa Touré dinañ fa jàng taysiir muy xale yi nga xamante ni ñooy kadee oustaz Malick ak kadee oustaz Makhtar incha allah dinañ leen jagleel ñu jàng fa taysiiru Cheikh Hadji Malick ñaan yàlla sàmm réew bi aar aar réew mi bu ñu noppee nag ñu jox animation bi nga xamante ni mooy Cheikh Ahmed Tidiane Niang nga xamante ni moo ak groupe groupam bépp di sopp na bi ñoom ñoo fas yéene taxawee tàkku saan bi bu ko defee ñu jébbal leen kàddu gi ñu jox euh, aju badu mu continuer programme am incha allah ba ñëwaat ci. waa jërëjëf imaam Ousseynou yàlla ñu yàlla may fekke ak tal bu ñu jugee ci góor ñi seen wàllu organisation bi kon ki ñuy jox mooy na te nag mi nga xam ni moo yor fii organisation daayira sopp bi fii kon Aminata nan ngeen di waajalee bis boobu la 27. salaamaaleykum mbokki jullit yi maa ngi nuyu ñëpp. ci kenn ku ne ak santam di nuyu daayira sopp na bi di nuyu Serigne Issa Touré suñu responsable moral di nuyu as Adja Asturé mi nga xam ne moo waral bis bi la la 27 ci croisement Sam maa ngi woo suñu mbokki eh, jigéen ñëpp mbodd 3 jigéen ñi fi nekk ñëpp maa ngi leen di woo maa ngi woo Sam Notaire jigéen ñi fi nekk ñëpp képp kuy jullit daayira sëñ Babacar ay nu maan ñëpp maa ngi leen di woo mboolem koo xam ne yaa ngi julli ci yonent bi maa ngi lay woo ci bis bii nga xam ne Adja Astou Touré moo koy woote ci ci corosement saam muy conférence bi mu bi def année bu jot mi ngi woo jullit yëpp bu kenn manqué bis bi nag lépp loo xam ne lii muy wàcce kaamir bi di lépp loo xam ne ñu ngi koy taxawaay eh, taxawa ci bis bi lépp lu mu rafete rek woo nañu ñëpp ci taxawaay na ñëpp ñëw na ñëpp teew woo nañu ñëpp bàyyiwuñu kenn mag góor ak jigéen mag ak ndaw daayira mustaasi diine yi nekk fi ñëpp woon nañu leen daayira sëñ Omar Mbàkke daayira euh, sëñ Seexuna Mbàkke ñëpp woon nañu leen ci bis bi na ñëpp teew loolu loolu la ñu woote ci bis bi ñëpp teew di sant yàlla di julli ci yonent bi di ñaan yàlla sunu borom yeggale ni ci bis baak jàmm incha allah ci kàttanu yàlla ñu dugg ci bis bisimilahi rahmaani rahim yeggale alhamdulilahi rabil alamina waa jërëjëf Adja Aminta Niang kàddu yi rafet na mat na yàlla ko yàlla mottali bu ko defee rek bu ñuy waxee ci organisation bi wàllu góor ñi dugal wàllu jigéen ñi ñoo ñëpp nag dina ci am koo xam ni mooy jiitu ñu topp ci kooku mooy kan kooku ku ko jiital ginnaaw yàlla du ñun nii ku ko jiital ginnaaw yàlla du Adja Asture de ku ko jiital ginnaaw yàlla di alaaji Sàmba ba ki ko jiital mooy kan yàlla ginnaaw yàlla kan moo ko jiital Cheikh Seydil Mouhamadul Mansour borom daara ya yàlla yàlla yokk leeram kooku mooy kan mooy yaa Jóob mi ngi nii toog suñu ginnaaw di suñu mag di mag ci Sàmba Ali mii nga xam ni mooy borom kër Adja borom bis bi imam yaxyaa mii nag pour ñu jox ko kàddu nee na nañ ko waxal kàddoom waxal nañ ko ko waaye su boobaa lépp li ñuy commencé nii tey ba ci ëllëg sa bi ñuy delloo bagages yi lépp mi ngi ci loxoom mooy def mooy dindi njaboot gi yëpp ci loxoom la ñu topp kon bu ko defee nag kon ki ñu jox kàddu gi mooy kan bu ñu nee daayira sopp na bi loo gis lu ne am na bopp te lu amul bopp du dox daayira sopp nabi fii ci Mbodj 3 kon ki ñu jox kàddu gi mooy présidente bi Adja Khadijatu Ndiaye Diouf ngir mu wax ci turu daayira yépp mu woo ay daayira yépp moom tam Adja Khadi Ndiaye Diouf kon bismillahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim di sant yàlla di sant yonent bu tedd ba sa Medina di sant Cheikh Seydi Aji di sant Cheikh Ahmed Tidiane Chérif borom tarixa bi di ñaan si yàlla di ñaan si yàlla di ñaan si yàlla niñ ko daan defee di ko defee ñu ngi ñaan di ko dooree ak onsu billahi mina seytaan rajim yal nañ ko yeggale alhamdulilahi rabbil alamin di sant sëriñ Issa Touré sunu responsable moral bi nga xam ni tey lu ñu mën lu ñu jiite lu ñu def moo ñu ko jagleel tee ñu ba ñu yegg fa di teg soxna Adja Astu Touré mii nga xam ni moom moom bés bi jiital ñëpp jiital ma yal na yàlla yekkali bësam bi yal na ko yàlla mottali yal nañ si yàlla dàqal seytaane musal ñu si lépp luy dog dog di woo képp ku bokk si sopp nabi képp ku bokk sa nabi ñu ngi lay woo di géejo waaye foo mën a ne tuwaawan ak yëpp di woo nag waa Bargny bu ma kenn seetaan ne ñépp ñëw wuy sunu bés bi si barke yonent bu tedd bi yal nañ ko door ak jàmm yeggalee ko ak yal nañ si yàlla dàqal seytaane ak si li nga bëgg si bis bi yal na ko yàlla mottali Samba Barak bàyyi nañ la ak yàlla yal na yàlla yeggale daayira bi fa ñu bëgg yegg yal nañ fa yàlla yeggale si barke bés bu tedd bi ñu yeggale ko jàmm sa barke yonent bi. Ah, jërëjëf présidente ah mu mel ni présidente sax far na def waxtaan ba far na def ñaan ya yal yàlla nangu ñaan yi yal nañ si yàlla yóbbu jàmm kon bu ñu waxee bés nag am na lu ko waral li arab naan ana ana. laysa huwa mana mana du moom mbir mi kan la ki ko taxawal Adja Asture dëgg la naam moo ko taxawal waaye nag bu amul woon tànk amul bopp du dem kan mooy tànk Asture kan mooy bopp Asture kan mooy làmmiñu Asture kan mooy loxoy Asture kan mooy poos Asture moom lañ bëgg a jox kàddu gi di borom këram di alxaaji imam sàmba Ba kon imam bismillahi rahmaani rahim ginnaaw gi ñu sante yàlla julli ci suñu yonent bu tedd bi ñu ngi sant suñu kilifa diine yi euh, di si jiital ki nga xam ne mooy euh, sëñ Issa Touré di sant nag di ziara shérif nga xam ne moo ñu euh, taxawe moo faral di taxawee bis bi di sant ñu fi teew ñëpp di ñaanal jigéen ñi ñi nga xam ne bi ñu commencé wax bis bi ba léegi noppaluwuñu benn yoon di sant tamit di ziyaara ñëpp ñu fi teew am imaam Ousma euh, Badou imaam Fall ak xale yi ñu nekk ay jàmbaar bis bi nag bisu mbodd trois la bisu géejawaay la ñu ngi ci woo dëkkandoo yépp di ci woo jullit yépp booy dugg ci kër nag da ngay jaar ci bunt ba di nuyu monsieur le maire de la ville muy Aliou Sall di ko ci invité aussi ak suñu député kii di El yi Mika Ba taxaw de ci bis bi ñu ngi ñaan yàlla may ñu wér ak wérle ba lépp li nga xam ne yaakaar nañ ci bis bi yàlla defal ñu ko te am nañ ci yaakaar nag xanaa di di sant mbooloo mi rek euh, di santati ki nga xam ne euh, muy suñu wasila di suñu sëriñ Ibrahima Aydara Tidiane moom nag fu ñu féete di sant suñu mbokk yi nga xam ne ñoo dëkk fële si Cubalel muy département de Podor ñu bëgg ñoom ñëpp ñu ñëw teewee bis bi parce que bis bi seen bis la donc waa Cubalel laaw waa département de Podor ak dëkk yi ko wër yëpp xarit yeek mbokk yeeg am di jàmm yëpp bëgg nañu ñëw teewee taxawu bis bi teewee bis bi fekke waxtaan yi di sant ñëpp di ziare ñëpp ñaan yàlla yàlla may ñu ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulillahi rabbil alamin euh, allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim jërë ngeen jëf alhamdulilah jërëjëf sëriñ Samba Ba yal na yàlla nangu ñaan yëpp ci barki yonent bi ah mbokki ni ñu ko waxee noonu rek la fa demee nee nañ ñi ngi woo mbokki ñu ngi woo dëkkandoo ñu ngi woo ñëpp te nee na booy dugg ci kër da ngay jaar ci bunt bi booy dugg ci dëkk bi da ngay jaar ci bunt bi bunt dëkk bi mooy kan mooy monsieur le ak Alioune kooku nga xam ni amul benn këru diine bu ko jéppi kooku nga xam ni amul benn kër beneen boo xam ne si yaa ngi yëngatu pour ci wàllu social boo xam ne dina la jéppi kooku ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla ko yàlla defal jàmm ah bu ko defee rek kon ki ñuy jox kàddu gi mooy ki waral bis bi ki waral bis bi kan la mooy Adja Assou Touré Jaxa bi bisimilahi rahmaani rahim ci ndigalu Serigne Issa responsable moral des daayira Sopp na bi du Sénégal ak ki nga xam ne mooy président fédération bi muy El vie Vieux Korea ñi ngi woote ñun waa Sopp bi si sama présidente nag laa koy doore ndax sama présidente mooy ajaratu Xadi moom mooy présidentu sopp bi bu mbodd trois ñoom ñoo waral bës bi bés bi sopp nabi moo ko waral soppe yonent bi ñoo ko moom maa ngi woo Badu Ñas mi nga xam ne moom mooy daayira sopp bi xale yi jeunes yi ajaratu Xadi Njaay di daayira sopp bi mag ñi ñoo fi installé daayira bi sous couvert de sëñ Issa Touré waaye nag maa ngi woo Cherif Ibrahima Aidara Atijani sama soppe la dama ko sopp yàlla moo ko dogal mu nekk nit ku baax koo xam ne jàppale rek moom it tànt yonent bi moo ko ñor di sotu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam depuis ma commencé première édition ba tey Chérif amul benn day nekk Paris sax ñu wax ko mu passe avion ñëw fekke si ko kon kooku amuñu payam suñu borom subhaana wa rekk lañ koy bàyyee ak waa kër maamam rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñun nag kontaan nañu lool duma jaar fa samay nawle jaar sama borom kër moom bu ma amee tànk am làmmiñ am gémmiñ lépp lu ma am moom la ndaxte tamit bu peccam liir neexee dafa fekk day jaajàpp sa mbagam man sàmba mooy sama doole macha allah alaaji yaxya maa ngi lay sant di ko gërëm moom it mu ngi ci jataay bi ndax jataay bii kat rafet na lool macha allah daayira baa ngi fi waaye moom mi ngi fi nekkoon ku jegewoon woon sëñ Mansour si Malick ànd ak soxna Asiyatu si yàlla boole ma ak moom ci géejawaay mu yàgg lool ma koy sant lool ndax lépp lu may wax dinaa ko wax ak moom lu may def dinaa ci def ak moom kon sant naa ko gërëm naa ko maa ngi woon ak ajaratu madam Ba ñu koy wax ay satu ndaama Kulibali di jabaru Abdul Aziz Ba bu hôpital la daan teg cardiologie di nit kenn ci man bu ngeen seetloo carte yi benn marraine la am de mooy kan mooy madam Ba moomu may wax nit ku baax la bokk service. mu nekk présidentu jigéen ñépp kon su ma ko wooyee woo naa jigéenu ay aéroport yépp woo naa jigéenu ASECNA yépp woo naa képp koo xam ne yaa ngi wax ashhadu an laa ilaha illallah wahdahu laa sharika la woo naa ñépp di wax ne nag man ci biir tarixa bi aw ma ci kii bi kii mooy sëriñam kaa mooy sëriñam man ñépp samay sëriñ lañu ndax waa soppey dabaax woo naa leen maam Maodo barki démb rek ñu nag maam Alpha woo nañu waa soppay dabaax woo nañu waa so waa maam faa wàdd wele ndax nag calaa bokk ñi ngi jooy soxna Asi te noppeeguñu waa këram yépp woo naa leen di ci jiital li muy doon doon xale ka fa nekk muy soxna Umu Asi di soxnay Cheikh Omar Kane ñi ngi koy woo ci bés bi ak képp koo xam ne rek jiite na ko ci biir euh, maam Fawade Wele ñi ngi woo soxna Asiyatu si bint maam As ñi ngi koy woo ndax nit ku baax la ba ñu boolee ak moom ba tey dara lépp rafet mu nekk nit ku baax koo xam ne yaatal na ba mu yaatu ci tarixa Cheikh Ahmad Tijaan kon ñi lay woo di la woo ak sa mbooloo ak sa daayira man daanaka woote rek moo tax ma jël parole bi ñi ngi woo tamit samay invité d'honneur sëriñ Moulay Si Tiwaawoon sëñ Cheikhouna Mbàkke ak rakkam ñi ngi woo daayira yépp nag ndax bañ naa ko ba daayira invité laa def coordination des Tidiane yéen a moom bés bi yéen a moom bés bi El Hadji Ousseynou noo ngi toog yéen a moom bés bi waa coordination bi kon defe naa ne wax nañu wax ji yépp man dama doon woote rek di bëral waaye lépp maa ngi koy woote ci turu sama présidente nag ndax sama présidente nag sëñ Issa def ñoo jiite jiitewuñu jiitey mbëtt wax dëgg yàlla jiite nañ jiite bu rafet suñu ànd bi nag rafet na ñii ngeen gis fii ñooy boppi daara yi daayira bi ñooy boppi daara ji dafa nekk ni ñëpp mënuñoo wax rekk waaye fii ku fi nekk rekk responsable nga kon boog ñun ñëpp yal nañ yàlla may ñu dem ci bés bi si bisimilahi rahman rahim génn si si alhamdulilahi rabil alamin le parrain d'honneur benn parrain lañu ñu amit ndax ñun dee nekkuñu fi di wut yu bari ak kii parrain bi nag boo gisee ñu tànnee ko nii mooy moom mooy jiite euh, mairie de la ville de Guédiawaye muy monsieur Alioune Sall dañ ko woo parce que moom mooy première euh, autorité de la ville de géejawaay kon soo ko wooyee woo nga képp ku yeewoo Guédiawaye donc bu paasee tamit maa ngi woo sama soxna sama chéri sama lépp ñu koy wax faatu Néné Fatoumata Tall Néné Fatoumata Tall ministre de la jeunesse di soxna kenn ci man Cheikh Mbaye mi nga xam ne ñooy yeewundoo ca service ba kon ñoom ñëpp woo naa leen moom boo ko woowee woo nga jigéenu département de Guédiawaye yëpp kon woo naa ñëpp eh, wasalaam di wax allahuma salli ala seydina muhammadin wasalim jërë ngeen def mbokk yi kon bu ko defee bés baa ngoogu woote baa ngoogu kon nag bis bi ku ko tudd ku nekk woote nañ ñi ñu war a woo yëgal nañ ñi ñu war yëgal waaye billaay tey ñu xam ni Adja Asture woo naar ci guuxum sow bés bi wax naa waa daayiratu xayri wal minati wax naa daayiratu sopp nabi yëpp wax naa daayira coordination jeune tijane wax naa daayira kër Seydi Jamil yëpp ni leen bis bi tey nekkatul bisu Adja Asturé bis bi dugal nañ ci koo xam ni seen benn taalibe la muy Badou Niass Touré mi ngi ci biir nee nañ lépp nag organisation beeg démarche yëpp bi soobee Yàlla ak yonante bi waa kër Seydi Jamil taxaw nañ waa kër Dabax tabax taxaw nañ waa xayri wal minati yi taxaw nañ waa soppi nabi yi taxaw nañ kon bis bi yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ku ñu jiital ci cant gi mooy sëtu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ni moo war a def thème bi thème bi lan la mooy dunduk seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kan mooy def thème bi muy shérif ibrahima haydara ak tijaani bu amoo kaat shérif mi nga xam ni moom moomu di def thème bi ñun am na fu ñu jaar ak shérif de loolu du waxu tey loolu suba la bis bi ñëwagul dina doon bis boo xam ne dañ fay toog def ko direct ci télé bi ak shérif ñu ngi ñaanal yàlla ñëpp di sant waa télévision bi di leen gërëm di leen xamal ni képp koo xam ne sii su bis ba samedi ba munoo teew ci bis bi boo jàppee shérif Dabakh TV incha allah rabbi di nga ko seetaan direct à partir de 17 heures direct lañ koy def ci télé bi incha allah ci internet bi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan yàlla képp ku fi ñëw yàlla yàlla faj say aajo yàlla na nga wér ku fi indi ñàkk yàlla na nga am Chérif Serigne Issa bis baa ngoogu seen bisa seen i njaboot dañuy ànd ak yéen di leen ci gunge ñaar ñi séq bis bi daal moo ñaar ñi nga xam ni moo ñaar ñi defal kii yore waxukaay gi di wax salaam aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ألا يا رسول الله يا أفضل الورى فها نحن في ضيق شديد التراكم فنحن في ضيق ولم نرج فارجا سوى الله والهادي لسبل المكارم صدقت على ما قلت في عوض ديننا غريبا كما في البدء غير الراحم